barakaatu xaaj Babacar delloo naa la nuyoo bi ak ziar bi. jërëjëf nuyu auditeurs yeeg auditrices jërëjëf yóbbalu bés bi. waaw xaaj yóbbal bi dafay jëm ci koo xamante nit yi dafa sawarul ci jaamu yàlla. nga xam ne fu ñuy waxee yàlla du ko sopp. su déggee nodd du ko jaral mu dagg lam doon def julli ji. su ñuy wax yàlla wala ñuy wax yonent bi. wala ñuy wax affaire mbaax yooyu du ko intéressé koo xam ni yàlla nattoo na ko noonu kooku la ñuy tuddee boroom xol bu sàggan kooku nag su bëggee yàlla dimbali ko ñetti turu yàlla yii saa yu tëddee guddi bala muy nelaw da koy wax rekk ba nelaw jël ko day wax yaa raqiibu yaa muxyi wa yaa mumiitu yaa raqiibu yaa muxyi wa yaa mumiitu di ko wax ci xelam noonu ba nelaw fëkk ko lii ku koy faral di def incha allahu taala sunu boroom mën na la dimbali. Hmm. ba sa xol bi noonu mu wone woon ginnaaw borom bi wan gannaaw mbaax. wan hmm. gannaaw jaamu yàlla. Hmm. yàlla delloo si waat ko ba xol bi nooyaat ci lépp luy xeetu mbaax. yaa raqiibu yaa muxyi wa yaa mumiitu.